depuis quelques mois dëgg la mais da ngaa yàq sama der fenal ma ci ay rajo ci loo xamul dara ma bàyyi la nag ba mu jot ndax yow bi may wax ci affaire gerte gi ba Ngom miy wax dañ koo jox gerte mu jaay ko Moustapha Niass Cheikh Seck ay meeru jabaram ka jox nañ ko 40 tonnes Matar Diop bu gàtt boobu nga xam ne moom lay àndal ay centaine de tonnes mu jaay ko. may sa Sele Ndiaye jox nañ ko soixante-dix tonnes jox Sele ma nekk fële dix yow joxuñu la wax naa la ko nga toog di ma saaga di wax lu la neex ma toog ba léegi nag may ñàpp sa ndey te doo ci man dara damay daqaar sa ndey demal ci procureur sa datam ndey. yaa xam j'ai déclenché une guerre contre les ennemis de la démocratie de l'état de droit vous voulez faire de notre pays une dictature qui ne dit pas son nom je refuse je dis non. yéen bi ñuy xeex bu dee journaliste nga demal bind dëgg gi lii ma la waxit bind ko te porté ma plainte yàgg Farba Ngom seen datay ndey laa wax doomu caga ngeen katti kattu caga ngeen ay naafeq ngeen du ngeen defarum réew vous n'employez personne naan sangara mooy seen ak caga ji doomi jàmbur yi ak jabari jàmbur yi ñàpp leen seen ndey fële seen lëfal ndey ku ci bëgg a dugg na ñëw ñu xeex wasa pour ma bàyyi la da nga dem weddi li nga waxoon ci rajo télévision bi yàgg Farba mbaa da ñëw sukk sama kanam tuub xam ne du ma sa moroomam baay du ma sa moroom maam sa askan wépp sama daal leen gën ndax damay werd di jaamu yàlla te du ma naan sàngara du ma moy te du ma fen te ragalu ma Macky Sall mënumaa ébranler Marème Faye mënumaa ébranler dama àndoon ak ñoom ci ngor léegi xeex bi déclenché na dañu xool ba xam fan lay mujj ndax yéen du ngeen gor li ma liggéey CEDEAO ngeen dem di ma dóoral ak di kat seen ndey di wax lu ngeen xamul dara CEDEAO ko fa taxaw ni ma dollar jël naa ko fa ma xotti sa bajom ndey man man Afrique gi maa ci gën a kiling waaw Macky Sall maa ko gën a kiling ay ministre maa ko gën a kiling Macky Sall mi ngi traîner de casseroles moo ñi mu àndal boo ma tuddee ma xotti sa datam ndey xadeet sexal la ko ci mbedd mi sa lëfal ndey ak farba gis nga yaa xam man maa leen mag j'ai soixante cinq ans vingt et un ans laa jëkk am million jàkkaarloo naa ak socialiste yi xeex ak ñoom ci tanoor ba falu quatre-vingt-dix-huit jàkkaarloog PDS yi ba falu ñaari yoon ci seen kaw Ablaye Wade teg ma fen ma xeex ba fal Macky Sall gisuma leen yéen bi may xeex sept région laa def ak moom fab sama alal jëpp def ko ci Macky Sall ngeen may saaga danaa Dakar seen nday yéen ñëpp benn par benn sàcc yi nekk ñi ministre directeur ku mel ne ba jaay suuf si di lekk danaa xarfal seen bay maa ñëpp ndeyam